jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lambo te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV lundi le décembre ci atum ñu xëy ñëw ak ci journal sunu lamb fekkati fay affiche am solo journée Jax production ba doon amal foofee nga xam ne nii moom moo di caare ni ki samedi ki nga xam ne nii moom moo di kagourne assumé ci ki nga xam ne nii moom ñëw ci combat ba ñu dàq diggante guy gi ak ki nga xam ne nii moom moo di Reug Reug moom Reug Reug moomee ñëwoon foofee nga xam ne nii moom moo di arène nationale jàppale si ki xam ne nii moom moo di Siteu ak tarkinda bi yalmin bi borom dëkk bi Siteu Papa Sow combat ba journal bi xëy bind ne sans verdict day noonu la combat bi mujj demee ndax ku dekk gis na gaañu gaañu bi nga xam ne nii moom la Papa Sow amee waaye ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sow la côté bëri itam ñëpp ko moom Siteu itam balaamee ne ki nga moo di Papa Sow Malick moom moo di activité moom Tafa Gueye itam andi na ci ay leeral Sitor Ndour moo joxe li nga xam ne a moom moo di sans verdict ba ca boobu le combat waaye ki nga xam ne nii moom moo di Max Mbargane mi xam ne moo yore ki xam ne nii moom moo di Siteu moom Max Mbargane la mu xam ne moom moo di dañoo waroon a jox Siteu li xam ne nii moom moo di victoire am loolu la blâmé waa CNG waaye ba tey ci xëtum sunu lamb ñu dellu si waat ci combat bi fi jaaroon samedi di caatu di verdict sont li nga xam ne ni inspecté arène nationale waaye ba tey journal sunu lambo xëy di ñu xamal ne ki xam ne ni moom moo di dab daan prêt contre tout le monde waaye ba tey journal sunu lambo jàll ci combat bi diggante Siteu ki xam ne ni moom moo di Papa Sow la sécurité bien en place waaye ki xam ne ni moom moo di Pape Abdou Fall ñëwaat na ci combat bag la ko yàq ak na mu demee jax prep li nga xam ne ni moom moo di journée yi mu jëm ci kanamam Balla Gaye 2 débarqué ce lundi ñibbisi fi nga xam ne ni moom moo di ci Sénégal loolu journal bi xëy bind fait de Oh, pour ki nga xam ne nii moom moo di caatu Daawuda Fall ginnaaw ba mu dajee ki xam ne nii moom moo di Kaw Gourdin ca final ba moom Kaw Gourdin moom mujjee jël final boobee yóbbaale ko Dalifort booy fay retrouver le sourire sur la victoire waaye ba tey ci journal sunu lamb bu ñu demee ca calgati fekk fa ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sow kee la mu bëgg moom moo di dugg ci garde yi la mu bëgg moom moo di jàpp dóor yéen ñi ko seetaan lamb actualité ak Laañaar kër Daama kër Seer Jàllu Ndul ak Pataar kër Ibra Yaasin Sambe Ngewel Sambe Kool Dalak Daaru Xafoor siyaare Sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité